Macky 2012 yi nga xamante ni ku ci la président Macky Sall dajeel bu la joxee loxo jaar ci sa tur jaar ci sa sant mooy ñii toog bu ko neexee nag mën na wut beneen mouvement des femmes Macky 2012 waaye Macky 2012 femmes man Mously Diakhaté maa ko jiite Marème Ndiaye mi nekk model nekk rapporteuse général Aram Dioum bu Maodo Malick mbay topp ci sama ginnaaw Aji Mbergane Kanouté toog nii ci sama wet Kumba Gise mi nekkal fi Moustapha Diagne Ourey Ourey nekkal fi Union Citoyen IDSA authentique Jaariyatu nekkal fi ki sant Basiiru Jaxate nekkal fi euh, jigéenam nekk fi professeur ñaar ànd falaat Maki yónnee fi Alla Dieng yónnee fi Tete Jeeju yónnee fi APR nday nday Sali Diop yónnee fi APL bari nañu muy ñoo xamante ni ñoo fondé mouvement des femmes Macky 2012 ca ba muy door te nag en unanimité ñoom leader yi ñoo ma woo ma organiser ma suñu jigéen yi ñu organiser leen ba mu yegg ñoom ñu jël ma teg ma ci seen kanam ñu liggéey ba war a toll ci ay renouvellement dama dee ni bu fekkee ni da nga bëgg renouveler mouvement intégré te amos sa achandaaw bopp di nga woo ko fa nekkoon ni ko dama bëgg ñu préparer renouvellement yi parce que ku nekk xam ni bureau sortant moi préparer assemblée générale waaye man waxul ak man waxul ak keneen nag koo xamante ni jël décision ci mouvement des femmes femmes yi tok kum ci woo ko nan je nga wax ak moy présidente man nak duma adversaire waye dama comprendre xamni dafa am agenda wu ni lay dérouler droit bu ko nexé euh, candidat 2024 mais dama ni damay interpeller maître Moussa Diop bi nga des leaders devant tout le monde moo ni leader yi ku ci bëgg a dem local dinaa la financer pour nga conquérir à à à Benno Bokk Yaakaar may laaj fan la jëlee boobu xaalis. li xew ci suñu biir coalition mooy maître Moussa Diop moom asandaam leer na moom nee na carrément ba élection ya jàllee defe naa ni ñuy suivre actualité yépp gis nañ ko nee na candidat la nungul nañ ko ko. teewul ñu jox ko coordination wu Maki 2012 ni ko coordonnel parce que ci nga bokk waaye bi mu nous li mu jëkk a def mooy ñi nga xamante ni ay plénipotentiel la ñu woon représenté fa seen ay leader ñoom la wëlbatiku naan ko yow bu subaa ma def la leader leader non lañ koy donné. jël borom see yéy naan leen dama leen di denk yeen mouvement des femmes Elle est kon mu wax ak mouvement des femmes bureau bi fi nekkoon ni len nañ def ay renouvellement mais mom dafa créer mouvement de femmes tay ji ñun liñu soxla dika wax interpeller le président Macky Sall mi nga il est le président de la République il est le coordonnateur de la coalition Macky 2012 avons waxa Moussa Diop bu fekké né mom daf né ci biir Macky 2012 sa la bokk ndax ba mu ñëwé gis né Macky 2012 installé nañ ko le président Ibrahima Sall bi sama leader yoré won ko liguey ko avec brio président Thié ñëw yoré ko même chose tay bañu ñu ne ko yow ñewal ñetti wër nga essayé ñetti wër mu ñëw toj adina toj gor ña dugg sa jigen ña rajaxe ko té dafa am lo xamante nak bo féké base ya xamuloo nan lañu ko tëralee nga ñëw bëgg dugg sa bir day doy war teg mu mouvement Macky 2012 bi muy coalition Macky 2012 wallaay fa mu tàmbalee sax ku ko nekk nar a nekk wax dina dina metti parce que nag du ko mun wax xamul historique bi fa nu jóge ba nag dafa fekk ba lépp baax rek mu daal dee ñëw macha allah laf cat euh, catuma ko mais liñ koy xamal rek mooy ne moom bu fekkee ne dafa bëgg ne day liggéeyal la président Macky Sall day ñëw fa jigéen ña ne mu dajale leen ne leen kay leen ñu ànd ñu liggéey mais du fekk fa jigéen ña ne mu ne moom day créer leneen bu fekkee dafa bëgg mouvement des femmes na jaaree si honorable Moussi Diakhaté mu indi ay jigéenam moom ku bëgg na ne man bugg naa mouvement des femmes Macky 2012 parce que nu si démocratie la ñuy defee ku ñëw yaa ngi si biir. président de la république interpellé nañ ko mu yabal la ministre d'état Mahmoud Saleh ni ko na nga diglu ñaari camp yépp ban benn camp bi nag diglu na leen waaye beneen camp ba ñoom dañoo bañ. ba information yi ma ci mujj am Met message Job nee du Mahmoud Saleh en tant que ministre d'État soko respecté wul sax mom en tant que Mahmoud Saleh nga respecté ndomba tank gi nga je ni le président de la république le gardien de la constitution moko ko takal té lu fi wa yor bay ka dal commencer par man mo la ko jox ñun li ñu bëgg moy une restructuration de maqui 2012 commencer que ce leadership. yi bu paré nak ñun au niveau des femmes mouvement yi ak euh, kii lan lañ si bëgg mooy un renouvellement te renouvellement da ngay jaar si bureau ba nga xamante ne moom moo fi nekkoon le bureau sortant avec un tiers sortant ñu defaraat ko mais tey lu mu def ut benn jigéenam nekk moom ñëwal nga recruter ma jigéen ña sa microfinance ba kaay leen ngeen ànd ak man jigéen ja koy ni ko ku ñëw sa ñun ñun dinañ la financer ñëwal nga ànd ak Moussa Diop dama ne kooku jarul tudd ñun Moussa Diop nu intéressé moom may yónnee di seet ruq ya muy aw. képp ku jiite 14 millions sénégalais te mu leer la ne plus de 2 millions de sénégalais mi ngi ci àll bi te tey dañ doon wax naan pourquoi mu ni mënu la jëli ña siin waxul ay moyen wu dem jël leen rek dugal leen ci avion bi dafa laaj ay mesure sécuritaire tey mi ngi Italie est-ce que dañu jëli ñenn Italie mi ngi Australie est-ce que dañ leen di jëli mi ngi feneen ak feneen. plus de 2 millions de sénégalais ñi ngi à l'extérieur te ñooñu ñëpp ci mbaggu président de la république la ñu wékku defe naa ni foofu la ñuy waxe tey pour ñu jàppale le président de la république waaye ay xiiroo ak ay ŋaayoo réew mi talu ko